nañ fi ay renouvellement yoo xam ne ay jaas dañ fi génn kan moo fi mës a dégg dig c'est pas du tey jii nii la ñuy andil affaire dëgg bëgg ko gëmloo sénégalais yi nous nous alertons l'opinion nationale et internationale que le secrétaire général du parti socialiste ak direction bi mu àndal ñu ngi yàq parti socialiste Sénégal yoon bi ñu jëm baaxul nous avons alerté et aujourd'hui il est temps de leur faire face ragal yàpp yàlla la ndax nit ki nag boo ne doo ko topp fi ngeen jëm moo soriwul. mais Serigne Mbaye Thiam dafa confirmer ni que xëj na euh, yéen maanaam benn débat bu ruxaa ngeen def mooy que moom convoqué nañ ko dikk kenn déggul Moussa euh, Ousmane Tanor Dieng convoqué ko dikk kenn yëgul mais yéen toujours yéen ci camp bu ñu leen convoqué la coono. waaw parce que ñoom bi ñu leen convoqué di pour ñu boole la pour ñu andi leen ay liste la. tey nag euh, ñu bëgg jël loolu yëpp teg ko ci kaw deru waa département de Dakar loolu dañ koy ñaawlu. Euh, di ñaawlu tamit complot bi nga xam ne ñu ngi continuer di ko organiser di ko orchestrer pour mën a noppiloo waa département Dakar mën a xokkotal waa département Dakar rek pour ñëpp mën a noppi ndax ñu mën a jox ay gage euh, le pouvoir en place kooku dañ koy ñaawlu comme stratégie. et je pense que tamit lu ñuy gën a tamit ñaawlu comme stratégie mooy euh, le fait que ñu ngi jox. ay ay ay gage pouvoir bi di jox ay gage coalition benn bokk yaakaar te ñoom ñu nga xam ne ñu ngi biir coalition benn bokk yaakaar ñoom ñoo gën a xam ne ni gage yooyu ça ne tient pas la route donc euh, je souhaiterais lancer un appel au président Macky Sall que le président Macky Sall sache que euh, euh, lu direction du parti jël ci engagement kooku engagé wul parti socialiste parce que parti socialiste lu ko mën a engagé mooy décision ñu nga xam ni day bàyyeeku ci comité central te plainte bi bu ngeen xam ne ni dañ dinañ ko ñëw mettre sur la table dès le retour de Aïssata Tall Sall yéen ñëpp di ngeen ci teg seen bët di ngeen gis ne ni que parti socialiste ñu ko yor tey ginnaaw jalgati texte yi ak bëgg a nelawal nit ñi amuñu beneen stratégie. parce que bëggatuñu waxtaan ak kenn bëggatuñu jokkoo ak kenn bëggatuñu convoquer benn instance de base moo xam ay comité centrale moo xam ay congrès extraordinaire bi engagé parti bi rek ndax seen intérêt bopp kooku moom dañ koy ñaawlu bu baax a baax.